wuutal nu la nga xam ne moom lañ diggante woon ak suñu borom tabaraka wa taala loolu tawfiq bu rëy rëy rëy la suñu borom may nit ki mujj gu rafet mu sóobu ci yoonu lislaam waaye sóobu ci woote ci jàngale yeete am ak pakk yi am ci jamono yëpp suñu borom saxal ko ci ndax sax googu day lu jafe suñu ko ñaan rabbana afriq alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi kafirin. lu mat di ñaan la muy asabaat sax ci yoon wi gannaaw boo ko ba noppi nga sax ci bañ ndax dafa bari iblis lim jëfandikoo ci ay baat la dan la la attaxidanna baat yu bëri te fu mu ciy wax daf koy fedd li benn bu ne ma dinaa ko def pour déwéyee nit ñi baat bu ñu dogee yoon bi dinañ ko wàcc kon nag ku yàlla defal sa baat dimbali la ba nga jeexal ci sa dund sant yàlla rek a ci war kon nag suñu mbokk mii di oustaz Alioune Badara ñu ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu nangul ko mboolem ak liggéeyam li ci am solo mooy nangu gi te gërëm ko li nga xam ne moo doon jubluwaayu saxaabatul kiraam mboolem luñ ko def ci diine ji wutuñ ci woon dara ay àdduna yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwana wa yàlla ak ngërëmam moom mii ci loolu la nekkoon ku gis tey barab yi mu dëkkee da xam ne wutul woon diine ji defu ko woon wutuwaayu àdduna waaye lépp lu ma mas a am daf koy tàggat ngir mu dellu ci lu jariñ diine yi luy tax mu mën a yaatal ak wooteem kon nag loolu la ñuy seede ci moom tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne woon antum shuhadaa'u llaahi fil ard yéenay yàlla ci kaw suuf kon seen mbokkum jullit bu fi jógee ngeen xam ci moom lu rafet da ko seede li ñu seede ci moom daal mooy koo xam ne ku nekkoon ci lislaam la nekk ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye di ca jihaad di ca sonn borom bi ne wal asr inna al insana la fi xusr illa allazina amanu wa amilu salihat am na ñoo xam ne xëy na foofu la ñuy yem góorgóorlu lañ bëggam yàlla di jëf lu baax waaye nag engagé wuñu la ci daawa bi borom bi nag teg ca watawaasaw bil xaq watawaasaw bi sabr ñi nga xam ne engagé nañu nag ci di dénkante dëgg di ko dénk nan ku leen ko dénk di dénkante itam coono ba nga xam ne mooy juddoo ci woote ci dëgg ñuy dénkante ci muñ loolu ci la nekkoon ba lépp ci dal ci ay natt yëpp dal ko ci waaye lépp yàlla na ko borom bi tabaaraka wa taala def fi misaani xasanaat yàlla ko yàlla jéggal yàlla ko yàlla yërëm yàlla ko yàlla woo ko ci njabootam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain